mooy lii fii dañ ko mën a réglé wuu caga yi oh ah! caga yi aja day dul caga yi wuu wuu wuu rub rub wuu waa ñoo ngi yàlla ko Gabriel kan ku ko wax nag sam xel day dem ci Adja Rabi Sarr ndax moom moo fi nekkan ab défenseur am kooka di Gabriel kan nag gas na kan ba mu xóot mu ne ci yomb kenn tegatu ko ay gët la ko waral nag lu dul leen lu dul ak kër goo xam ne bii ca la nekkoon doon fay li nga xam ne bii mooy location.

Ousmane Sonko dem na ba mu yàgg nag ki nga xam ne bii mooy Gabriel Kane tamit daal di gas ki nga xam ba mu xóota moo nekk ci yomb daal di koy la mujj ni ay njuñ jaaj yoo xam ne bi daal dañ koo teg ci am ndoddam kooka di Gabriel Kane kon nag kii di Gabriel Kane ki nga xam ne bii mooy Adja Rabi ñoom ñaar nag kenn ku ne ana sa ëllëg fan lay mujjee ndax kenn kenn ki jël na morom ji daal di gasa ba mu xóota mu daal di ko ciy dugal ginnaaw bi moo xamee ne procès wa ki nga xam ne bii mooy Ousmane Sonko daanaka daal amul dara loo xamante ni bi daal lu ci taxe lay doon lépp daal dafa nekk ak li nga xam ne mooy ay ki nga xam ne bii mooy Ousmane Sonko waaye nag la nga xam ne bii mënuñ ko àtte laalewul ak la nga xam ne bii moom la Adja Rabi Sarr waxoon tax nag kii nga xam ne bii mooy Gabriel Kane daal di abandonné ki nga ne bii mooy Adja Rabi Sarr ba jot sax di ko sànni ay trac ne kii di Adja Rabi Sarr daal saa bu bëggee xaalis il faut que mu a def li nga xam ne bii mooy ab scandale ngir daal di mën a jot ak koppar kooka di Gabriel Kane nag tey jii daal fi mu nii moom la ñuy wër ci kan yi ngir daal koy mën a tëggat ngir mu daal di mën a fay six cent mille francs yi jàmbur. doole doole lekk Sonko doole lekk Sonko doole lekk Sonko.